أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ci suratu nisa di jël tey juróomi aaya bi iznillahi tabaraka wa taala aaya 105 106 107 108 109 mu nekk juróomi aaya yunu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy laa yajuuzu alxukmu bi gayri ma anzala allah taala fi kitaabihi wa ala lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li njëkk lu ñuy jàng tey mbokk yi mooy du dagan ci ab jullit bu seede ne yàlla mooy boroomam muhammad yàllaa ko yónni du dagan ci jullit boobu muy àttewoo li dul li yàlla wàcce du dagan ci ku ki gëm yàlla nekk ab jullit du dagan ci moom muy àttewoo leneen lu wuuteeg li yàlla wàcc lépp li yàlla wàcce ci téeréem bi yonent bi leeral ko loolu daf ko war a doy kon ndeke gis ngeen alquran wàccul rek pour comme nuñ koy baaxoo di wax téere barkeelu bala ñu koy jublu am ku dee wala wala wala wala wala déedéet alxuraan dafa wàcc pour ànd ak sunu dund pour accompagner ñu sunu dund lépp sunuy dugg ak sunuy génn guddi ak bëccëg fu nu mën a ne alxuraan war a encadrer sunu dund nekk sunu guide ñu war ko def sunu constitution sunu dund lépp moo tax mu ne du dagan ci ab jullit bu gëm yàlla gëm yonent di àtte woo leneen lu dul alquran loolu nag tey wax dëgg yàlla buñ koy xool ci biir àddina bi duñu wax rek sunu réew waaye àddina bi yëpp danay gis ne jullit ñi dañoo gàttañ lu ci loolu looloo tax coow day bari ci àddina bi rek mais du jag réew yi nga xam ne mooy alamul islami monde islamique coow dafay bëri dañuy sonal sunu bopp rek wuute yi day bëri wax ji day bëri coow li day bëri li tax mooy wàcc bi ñu wàcc téere yàlla bi moom mooy koy wone du nu musa ànd du nu musa nekk benn du nu musa jaamu yàlla ni mu waree du nu musa am jàmm du nu musa bëggante du nu mus a dimbalante lu tax duñ ko def c'est parce que reen yi lañ dagg ba pare garab bu daggee reen gi di ko roose du tax garab gi dafay dee mënuñu saani téere yàlla sunu ginnaaw ba pare ne dañuy nekk ay jullit dañuy dund l'islam mënul nekk c'est impossible parce que alxuraan bi moom moo ñuy guidé moo ñuy wax fii ngeen di jaar lii ngeen di def du ngeen def lii léegi nag buñ ko bàyyee bu fële ba pare di def dañuy wuteek moom te suñu wuteek moom duñ mu nekk ay jullit damu ne du dagan ci ay jullit ñuy attewoo leneen lu wuuteeg li yàlla wàcce tey ci réew yi nga xam ne dañuy tuddewoo islaam ban réew ngeen ci gis muy attewoo li yàlla wax loolu nga foog rek keneen loolu nga foog rek ah loolu ngeen foog maaka bu doon àttewul islam benn famille du jiite islam bi du jiite kër gi du jiite diine bi ñaari kër duñ jiite islam bi foofu ñaari kër ñi jiite nguur gi ñi jiite diine bi est-ce que loolu l'islam la waaw mu loolu moom mag fu nekk dañuy jël lu leen neex bàyyi leneen ñii li moo leen arrangé ñu jël loolu ñii li moo leen arrangé ñu jël loolu su ko defee liñ jël ñu yàppale loolu muy diine ñu ciy rey seen bopp ñu bàyyi diine bi lépp diine islam diine sumu li la globalement la lépp ngay jël ñaareel mooy laa yajuuzu alwuquuf ila janbil xawana azalimina nusratan lahum du dagan ci ab julit muy taxaw ci wetu tooñkat yi ci côté ñi nga xam ne dañoo trahir yàlla trahir yonent trahir julit yi war leen nga taxaw seen wet di leen dimbale du dagan laa yajuuzu du dagan ci ab julit alwuquuf muy taxaw ila janbil xawana ci côté tra traître yi ñi war yàlla dindi ay loi yàlla sànni fële ba pare jullit di nekk sa wet di la jàppale loolu moo am ci àddina bi ñu war yàlla war yonent war l'islam jaay seeni peuple ba pare nit ñi nekkaat seen ginnaaw di leen dimbali te loolu loolu dañu ne du dagan daganul ci benn jullit ngay dimbali koo xamante ne bis bu sampoo charia daanu bis bu sampoo jullit ñi dañuy ñàkk ngeen di jàppale waaju mel noonu te chaque jour nag dañu nii nax rawatina nag koo xam ne tooñkat la koo xamante ne caaxaankat la koo xam ne saay-saay la bandi la ñépp ñoo leer na leen ne gëmul yàlla gëmul yonent kooku du dagan ci ab jullit muy taxaw ci wetam di ko jàppale wala mu koy dimbali ñetteel mooy wujubul istighfar min az-zamb kabiran kaana aw saghira mbokk yi dafa yell dafa war ci ñun nuy jégglu yàlla di ko jégglu ci ay istighfar ci bàkkaar yu mag ak yu ndaw yu ñu yëg ak yu ñu yëgul ñuy baalu yàlla di ko jégglu astaghfirullah dafa war a sax ci suñuy làmmiñ suba ngoon bukratan wa asila suba ngoon di ko sàbbaal guddi ak bëccëg di ko jégglu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na maa leen gën a ragal yàlla waaye man bëccëg bu nekk dinaa jégalu yàlla téeméeri yoon beneen riwaaya bi ne juróom-ñaar fukki yoon rawatina nun kon dafa yell ci ñun ci suñuy azkar suñuy awraad ñu boole ci istighfar gis nga yonent alayhi salaatu wasalaam sax dafa wax ne ku xëy ci yéen na def téeméeri yoon astaghfirullah daf ko yoonal suba ngoon muy kàddu yoo xam ne danga ciy jéggulu sa boroom tabaraka wa taala kàddu yoo xam ne danga ciy baalu sa boroom sa digganteeg moom nga yeesalaat ko ndax leer la ne ab jaam nga te dangaa bëri ay pakk ay fakkatal ay pakkatal yoo xam ne fakkastu nga ko su ko defee nga jéggulu sa boroom tabaraka wa taala ci yooyu nga xam ne fakkastalu nga ko nga jéglu ko ko moo xam yu ndaw la moo xam yu mag la ñeenteel mooy wujubu dafa war buxdu alxawana al asim ayan kaana dafa war ci ñun ñu bañ képp ku ñu leer ne traître la dafa war lislaam dafa war yàlla war yonentam war alquran dafa yella ci liñ ñu bañ la kenn waru laa bëgg ayyan kaana nag mu ne ku mu mën a nekk ayyan kaana ku mu mën a nekk dañ laa war a bañ waaw waaye tey li doy waar mooy da ngay gis benn nguur gu saay-saay ku kàccoore di rey ay julit ay borom xam-xam taxaw sa kanam di la défendre di la di la indil ay argument ngay rey ay nit ñu lay indil ay argument ne mën nga leen a rey den fekk ci ay jàkk di leen boom wala di leen tëj ci ay kaso wala di leen di violer jigéen ñi suñ doon jël tey misaal dëkk bu mel ni Égypte nga xam ne dañoo am président boo xam ne dafa bëgg a indi charia ñu coup d'état ko tëj ko rey ñi mu àndaloon violer jigéen ñi jël borom xam-xam yi tëj leen ñii ñu rey leen dañ leen a rey sax ba ñu bari xamuñu lu ñuy def néew yi pour ñu ragal ñu dem lakk ko nguur gu mel noonu nga gis ay borom xam-xam nekk ci ay minbaru juma wala ci ay mosquée di waaraati di orienté nit ñi dinañ ànd ak ñooñu am na feneen ak feneen ak feneen lu jeex loolu jaaduwul képp koo xam ne da ngaa war yàlla war yonent jullit ñi dañ laa war a bañ kenn waru laa bëgg c'est parce que da ngaa rey ay jullit kenn waru la bëgg waxuma laak nag taxaw sa wet di la défendre. juróomeel mooy istihbaab al waaz wa tazkir bi axwaali yowm alqiyaama danoo bëgg boroom xam-xam yi dañoo sopp dañoo bëgg nit ñi di waaraate di fàttali nit ñi yàlla di fàttali xew-xew mu yowmal qiyaam ndax jullit ñi mën a tiitaat dellu siwaat ci seen boroom dëpp yoon yi ñu jaar loolu dañ koo bëgg boroom xam-xam yi danoo bëgg ci jullit yi jullit ñi nga xam ne tane nañ am nañu xam-xam ñu bañ a tëjoog seeni xam-xam ci seeni biiri saal waaw ñu bañ a noppi ñu génn sol seeni dàll sol seeni yére takk seeni ndigg génn dugg ci àddina bi tasaaroo ci biir dëkk yi dugg ci kër yi waar jullit ñi ba nu delluwaat ci yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam benn bis wax na ne bu ngeen xamoon li ma xam law taalamuna ma alimt la dahiktum kafi qalil wala bakaytum kasir yenent bi nee na bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen génn ree tuuti jooy lu baree bari génn seen kër yi dugg ci biir dëkk bi koj nit ñi wax ak ñoom yenent bi nee na bu ngeen xamoon li ma xam kon dootu leen bànneexu ci jigéen ñi te di ngeen génn kër yi dugg ci dëkk bi wax ak nit ñi ñu ne yenent bi lan nga xam mu ne jaar naa aljanna gis naa li fa ne jaar naa safara gis naa li fa ne kon danoo bëgg nu waar jullit yi waaw danoo bëgg nuy fàttali jullit ñi loolu dafa jaadu dafa war wujub la kon juróomi mbir yi mbokki jullit yi ci sunu darsu tey juróomi aaya yi ñuy jàng buñ ko tënkee ba tënk ci juróomi mbir yi lay wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا سنو برمنا إنا من يلا أنزلنا وجنا wàcce naa ilayka ci yow muhammad alkitaaba téere bi muy alquran ba moo tax mu wàcc mu ne bil xaq ci dëgg rek aye bi solo nañ ne li tax mu wàcc mu ngi wàcc fi tuuma ibnu abriq wala ubayriq wa ixwatuhu aye bi wàcc nag ci kuñ naan tuuma ak ay mbokkam lan moo tax mu wàcc mooy waa ji dafa sàccoon benn mbubu koŋ mbubu koŋ mooy yére yooyu ñuy xeexee ñu koy sol ngeen koy wax lan gilet lan gilet waaw gilet boo xam ne boo ko solee yére boo xam ne boo ko solee bu ñu la dóoree bal wala ñu jëm la jaasi wala ñu jëm la xeej du dugg ki moomoon yére boobu nag mu ngi tudd Qataada mu daal di koy jël daal di koy dénk benn yahud yahud baa ngi tudd Yazid bi affaire bi xabaar bi siiwee ñu ne xataade de sàcc nañ mbubu koŋam nit ñi daal ne ah tuuma la tuuma la tuuma la am xabaar yi wax lool mu daal di tiit moom ak mbokkam yi ñu daal di jël yére bi comme dañ koo dénkaane woon ci yahud bi ñu daan ne ah diw moo ko sàcc ñoom ñu ko dénkaale ñu daal ne diw a ko sàcc yahud bee ko sàcc ñu ne moom moo ko sàcc ñu daal di ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu daal di giñ giñ gi fu mu gën a garaawee ñu waat ñu ne ñoom yëguñu tinuñu yére bi daal gis nañ ko ci diw diw moo ko sàcc ñu woo waa ji ñu fekk yére bi ci moom ne ko foo ko jëlee mu ne diw moo ko dénk mu ne man yow yow dama laa xam fekk moom moo ko dénk ñu waat waat yu métti ba yonent bi dëggal leen yonent bi jël jaasi bëgg a dagg loxo yahud bi ndax lan li bani abriq daa di seede famille tooma daa di seede ne waa ji moom du sàcc ku baax la nangam nangam yahud bi mooy sàcc bi yonent bi daa di dëggal ñee aaya bi daa di wàcc daa di ànd ak yahud bi leeralal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yahud bi sàccu kon alxuraan mbokk yi ban diine la islam ban diine la su fekkoon ne islam du dëgg yàlla amul yonante bi amul kuy wax ak moom kon keroog luy xew yahud bi dañ koy tooñ dagg loxo bi waaye xoola alxuraan wàcc ngir leeral yahud bi sàccul allahu akbar lan moo tax ay wàcc ndax seetal ku dul jullit leeral ay mbiram wax du sàcc allahu akbar xam nga yonente alayhi salaatu salaam bi aaya wàccee lu mu wax allah ila dafa mer mu ne innama ana bashar maa ngi leen di yëgal ne man mbindeef laa wa innakum taxtasimuuna ilayya yéen ñii da ngeen di xuloo ci sama wet dagga sante xuloo ba pare daa di wàññeeku ñëw ci man ne naa leen atte am na ci yéen ñoo xam ne alxanu dañoo neex lammiñ bi hujjatihi seeni lammiñ yi dañoo ñaw dañuy def seen musiba pare ñëw di neex lammiñ ba teeg ñoom ñoo tooñ ba ñu daal leen di jox ne leen yéen yéen la ñu tooñ waaye yonent nee na képp ku def loolu tooñ ba pare ñëw neex lammiñ ba ñëw ci man ba ma àtteel la fa aqdi lahu ala nahwi ma asma ba man li may su may atte man li ma dégg rek laay atte li ma dégg ku ci neex làmmiñ nag ba orienté say fen neexal ko ba ma jox la dëgg na yëg ne innama aqta'tu lahu qit'atun min annar na yëg ne li ma ko atteel daggitu safara laa ko jox waaye bu mu yaakaar ne am na ndam gis ngeen atte nu mu grawee yenn saa yi nga gis ku rey nit bandi agresseur rey nit wala sàcc rey nit ah ñu jëlal ay avocat yu dul jeex ñu taxaw di la défendre waaw te leer na ne yàlla yow xam nga sa bopp ñi ngay ñi lay àtte xam nañu ñi lay layil xam na ne yow bandi nga xam na ne yow criminel wala yow sàcc nga wala yow nàngam nga waaye ñu fexe ba jox la dëgg wala ñu fexe ba buñ la waroon rey kenn du la rey wala ñu fexe ba buñ la waroon tëj kenn du la tëj wala bu fekkoon ne tëj bi dafa war a yàgg ñu daal di koy wàññi. ba pare nag nga yaakaar ne rëcc nga nga yaakaar ne am nga ndam nga yaakaar ne nag léegi yow mun ngaa génn di zibilé rëcc nga fekk des na te bis boo duggee bàmmeel li nga xam ne tooñ baaxul. bis boo duggee bàmmeel di nga xam ne yóbbaale ak jullit yi tooñ jullit yi di nga xam ne loolu baaxul mbokk yi waa ji noonu la yàlla subhaanahu wa taala wàccee keroog aayeem daa di setal yahud bi daggul loxo bi tuuma bi mu yëgee aaya bi wàcc na dafa tuuma dafa daw génn génn Medine dem Màkk nëbbatu ci bi loolu amee mu dem au lieu mu yem continuer nekk sàcc benn bis mu daal di yéeg ci benn miir di tëb kër mu daal di daanu miir bi daanu ci kawam mu daal dee lan la doon daw lan la doon daw màkk déedéet lan la doon daw màkk ñu dagg loxoom lan la am midin lan la am màkk dee li mu doon daw ak li mu am bu gën a garaaw sunu borom subhanahu wa taala daal di wàcc aaya bi ne inna man yàlla tabaraka wa taala anzalna wàcce na ilayka ci yow muhammad alkitaaba téere bii di alquran yow yonant bi téere bii di alquran maa ko wàcc kon gis ngeen alquran jógewul ci Masamba jógewul ci Mademba jógewul ci kenn jógewul sax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan la jógee ci yàlla waaye lan moo tax mu wàcc bil xaq dëgg ndax téere bi wàcc moo tax téere bi ñu bëri mënuñu ànd ak moom te téere bi dëgg la te nit ñi bëgguñu dëgg yàlla nee na yonent bi indil naa la dëgg walakin aksara naasi lil xaqi kaarihun man yàlla maa la indil dëgg waaye li ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg waaw gis nga tey boo fi waxee ñu ne waaw waaye dëgg xam nañ ne dëgg la waaye nag ñaata yoon ngeen di dégg loolu xam nañ ne dëgg la ne waaye nag dëgg amul waaye nag dëgg def rek parce que yàlla nee na téere bi dañ ko wàcce ci dëgg kon suñ ko bëggee dund lan la ñuy def dañuy nekk ci dëgg téere mënut a ànd ak caaxaan kat mënut a ànd ak ay caaxaan mënut a ànd ak ay complot mënut a ànd ak ay tappale dëgg rek inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq yow yonent maa la indil téere bi ci dëgg lañ koy dee mu ne li taxkuma bayna annaas bima araka allah pour nga atte nit ñi li taxkuma pour nga atte bayna annaas diggante nit ñi téere bi dafa wàcc mbokk yi pour ñu atte ci suñu diggante léegi nag su fekkee téere bi dafa wàcc yàlla ne maa ko wàcc pour ñu atte ñu atte ñu ci ñun ñu bàyyi téere bi di attooy ci leneen est-ce que dinañ jub kaw mu ngi nii loolu tax dañuy sonn wallahi dañuy sonn àddina bi jullit yi jullit yi duñ nekk ci jàmm munul nekk munul nekk tey kenn ci ñun bu doon tukki di dox misaal fii ak Mali danga ko nga bëgg ko dox ñu indi la avion ñu ne la yéegal nga ni non avion bu ma ci yéegee damay gaaw a yegg vraiment du ma yàgg ci yoon bi du ma kii daal du ma gis lu bëri te damaa war a gis garab yi nga nekk foofu di lay ba avion bi dem bàyyi la foofu léegi nag nga daal di gàddu say tànk ne da nga dox jëm foofu li muy tekki mooy nooy def ah mbokk yi nooy def waaw bu nu yàlla indi leen alxuraan ne atte leen lii lii nekk leen ci ñu ne non yàlla day dagg ay loxo yàlla day reyaate yàlla day cawaate loolu dafa miit léegi nañ jël li yàlla wax ñu dugal ko ci triwaal yi ñun ay nit lañ comme ñun ñoo moom dëkk bi ñu xalaat ñun nan lañ war a dundee acca ñu ne bismillah ñu ñëw toog noonu lañ def moro du dem ba nu tëralee luwaay luwaay dafa am ñoo xamante ne dañ koy appliquer seen kaw cric am ñoo xam ne bu luwaa bi dalee seen kaw utal nañ ko ay génnukaay gis nga tubaab tubaab musiba la tubaab luwaa bu mu def bu war a dal ci nit ñi nga xam ne dafa métti dafa sévère utal na ko benn fenêtre boo xamante ne bu dalee ci kawam ci fenêtre boobu la lay lay ubbi nag te ci texte bi la koy ubbee texte bi la ñuy liir nga gis fenêtre bi ubbeeku fekk yow bi mu dalee sa kaw fenêtre boobu moom liir nga texte bi juróomi yoon mais mënoo koo dégg. am na ay baat yu ñu génne léegi baat yooyu yu ñu démb xamuñu ko woon bien mal acquis dañ ngeen ko commencé dégg du ngeen ma tontu bien mal. nu ngeen koy tool du nu ngeen koy tudde du noonu bien mal lan ak loolu lu muy teg ci olof du ngeen wax lu muy teg ci olof ah waa ji dafa am alal bu lewul ci olof ku am alal bu lewul noo lan la sàcc am na beneen baat déedéet détournement détournement fonds publics loolu loolu du ngeen koy waxee ci wolof xoolal bu dee waaji la fii dafa ñëw fekk oto jàmbur mu jël ko mais détournement la mais bien mal acquis la mais comme yé y a un voleur grand bandit dañuy wax parce que ay daal la sàcc bu fekkee waaji ay milliards la ne déqit toog ñu ne lan détournement duñu wax sàcc de du ñu wax valeur lu ñuy wax détournement wala ñu ne bien mal acquis tëj la ci benn kaso gars yi di la recevoir ngay recevoir ay nit ñu tegal la télé tegal la télé di la liiral ay journaux mais ki nga xam ne ay dàll la sàcc fi la ci jàkka ji moom fi ñu koy yóbbu pourtant ki sàcc dàll moom sax moom dëgg-dëgg lañ waroon tegal télé ndax moom lu ndaw la jël mi xoolal ki jël ay milliards yoo xam ne ñëpp a ko bokk daw ak moom daw fes kenn gistu ko mu dem dëkk bi mu ko yóbbu leer leen ne kii lim fi indi ci dëkk bi day baaxal sunu dëkk ñu ne ñu protéger ko may ko lan nationalité waaw ne kii lim fi indi milliards yi non il n'a pas question muy génn ah loolu fu mu bokk moo tax man leen bépp loi bu dul loi yàlla du dëgg day sànq àdduna ñaata nit yu rey ay nit yu fi denk di dox di dox ak comme nun ba pare li yàlla wax subhanahu wa taala ci waa ji ne dafa sàcc dañoo war a dagg loxo bi wala mu ne dafa rey nit dañ ko war a rey bu delluwaatee ci islaam ñu jàng dëgg-dëgg diine dañuy fekk kii sàcc la yàlla xam na ne sàcc la ñun xam na ne sàcc la sàcc na lu ñu war a dagge loxo ñu jàpp la ko beneen bi bu kenn yaakaar ne sàcc boo sàccee dañuy dagg sa loxo non dafa am loo xam ne ci lislaam boo ko sàccee fu muy toll ci taux dañuy dagg sa loxo bala ñu koy dagg aussi am nay enquête kii lan moo tax mu sàcc kii dafa xiif wala dafa mar wala wala wala wala wala ba ñu xam ne sàcc la ñu doog a dëgg loxo bi nga feebar da ngaa jabet nga dem hôpital médecin yi ñëw ñu ne yi kii foog ñu dagg loxo bi ko daggul day dee ñu ne la dañuy dagg sa loxo nga ni dagg leen ko buñ ko daggul da ngay dee nga ni alhamdulillah docteur bul woo kenn ñu ne noo baal ñu woo sa famille ñi woo sa pap woo sa soxna woo ñëpp ñu ñëw ñu ne seen jëkkër ji dafa feebar seen doom ji dafa feebar ñu ne waaw ñu ne bu ñu daggul loxo bi day dee ñu ne léegi lu ngeen ñu fiy laaj dagg leen ko ba loxo bu dagg kay moo gën dee waaw yàlla xool ki def feebar suñ daggee loxo bi day wér suñ daggul loxo bi day continuer feebar bi day continuer te day wàllu dëkk bi te day gaañ dëkk bi yàlla mu ne dagg leen ngeen ngeen bañ pommiteer bi dafa nekk ci saaku bi dafa nëb nu ko borom saaku bi def da ngay génne wala ne da koy bàyyi ci biir naan ni xaaral ma yóbbu ko ci pombiteer yu dëgër yi ñu den ak ñoom du leen mën a wàll noonu la borom saako bi defee bu jëlee pombiteer bu nëb boobu mu indi juróomi pombiteer yi nga a nganda ci saako bi mu def ko ci digg bi dendale ko yooyu pombiteer bu nëb bi nu muy def juróomi yooyu loolu mooy reykatu nit bi ñu bàyyi ci biir société bi reyuñu ko parce que yàlla xam na ne kii buñ ko fi bàyyee day reyaatewaat moo tax gis nga kaso yi da ngay gis ku rey nit dem ñu tëj ko mu génnaat def lan rayaat bal sax am na ñoo xam bu ñu génn danaan booy sama place maa ngi ñëw ku ma fi fekk dama lay kiil dama lay rey fii ñaata nit ngeen gis ci dëkk bi ñu ne kii dafa rayoon nit temps yële kii dafa rayoon nit ngeen gis waa ji di dox fi di tambar mbalu yor ay ngànnaayam encore voilà mais waa jooju bu ñu ko jàppoon rey ko ñu di ko ko ci stade bi di ko rey ñépp gis ko dëkk bi léegi mun a teg dëkk bi léegi ñëpp yaru mais reewande gi ngeen di gis ci àddina bi reewande gi ngeen di gis Sénégal lu ko waral mooy loi loi bi kenn du ko respecté lu dee ngeen farki dem xaw ma ay oto yu jaar ci xaw ma ay passerelle xaw ma loolu mooy coow ci dëkk bi fan yi ay oto yu ran ci passerelle yoo xamante ne ay lafañet ay nit ñoo fa doon jaar ay oto taxi ak ay xaw ma particulier na ci jaar jàll du loolu ngeen dégg wala déggu leen loolu ngeen dégg fee ku rey ja ku rey jabaram rey boppam wala déggu leen loolu voilà loolu mooy ñàkk dund li yàlla wax gis nga li bu kenn sonn wallahi alazim buñ jëloon loi yi gën a sévère ci àdduna yi gën a neex ñu teg ko nit ñi duñu am jàmm li yàlla wax rek li yàlla wax rek la ñuy def nekk ci jàmm ndax lan ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful mais ki bind moo xam waa ji defar oto bi oto bi bu paanee ñu indilaat ko ko moom ak ki defarul oto bi mu paan ñu yóbbu ko fa kan moo gën a gaaw réparé ah ki ko defaroon de ah lu tax moo ko xam yàlla moo xam nit moo tax mu teg luwaay yi mu ne lii lii la lii lii la ñun nag buñ ko weddee ne ñun ñoo ëpp yàlla yërmande lu mu ñuy jural mooy lii xew fi nii déglu ay nit seetaan ay nit ñu tegal ñu yeneen luwaa yu wuuteeg li yàlla wax ba pare ñu ne ñu di ngeen am jàmm barki dem président ñam na ay xeer lañ ko dóor université ba mu ndaw wala ah mu nga te fan la ñuy dóoree président ay xeer université université ban place la bu ñuy defaree réew mi nit yi xale yi réew mi bi ñuy defaree ñi war a yor réew mi ëllëg léegi ñooñu ñuy defar ñu war a yor réew mi ëllëg ñoo dóor président xeer kon ñooñu bu ñu nekkee ay président lu ñu ne xanaa kon ay bombe atomique la ñuy dóor nit ñi ah oui ah wala yéen xalaatu leen ci loolu non ñun fi ñu am fi gën a màgg ci àdduna mooy université wala ci Sénégal la fi ñu fem fi ñuy defaree nit fi gën a rëy mooy université université la ñuy defaree borom xam-xam yi ci la ñuy defaree ñu yor réew mi ëllëg ministre président ministre sénateur député na tout le monde fa la ñu leen defaree léegi nag ñooñu koj président di ko dóor ay xeer ba président daw ñu koy dugal ci yeneen i oto ñuy gaañ ñu mu àndaloon xam nga lu tax xale yi def loolu parce que lan leen jàngal baaxul parce que loi yooyu baaxul wallahi alazim bu doon daara alquran la internat la alquran université islamique lu ñu mer mer mer du ñu dóor président bi ay xeer parce que dañuy xalaat yàlla parce que lu ñu yàqu-yàqu dañuy dese fitra ah Sénégal boobu ba léegi est-ce que dégg ngeen waa alquran yi di marche ñu jàng alquran mës ngeen gis ñu jàng alquran ñu ne ya ñee di toj kaari day daara diw lañ jóge mës ngeen kaa dégg duñ ko def jamais parce que am na luñ dese am na fitra lii ku koy kenn kenn du ko jàng gis lii wara di def lu la neex jamais benn chrétien dafa invité benn jullit këram ñëw jox jullit bi mu lekk mu naan jox ko firi jox ko lépp ba pare indi sàngara jullit bi ne ko xaa lii na ko di yàlla ku baax nga nag waaye li bokk ci mu ne ko non yéen jullit ñi nag da ngeen a bëri problème dagan na araam na baax na baaxul oo hee oo waa soo wala yaa ngi lekk yaa ngi naan lii may rek nga araam jullit bi ne ko d'accord an sa soxna mu ne mu ngi ci biir mu ne woo ko mu ñëw an sa doom bu jigéen mu ne mu ngi ci biir mu ne woo ko mu ñëw ñoom ñaari ñëw toog mu ne chrétien bi ñaar ñi kan moo la dagan mu ne ah xanaa sama soxna si mu ne ah kii nag sa doom waaw doo bàyyi li ngay wax mu ne ah mu ngi noonu loolu mooy islaam rek mu ne pourtant wax nga dëgg de yow nag li ngeen nekk mooy dëgg ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna xoolal ni mu gaawee parce que yàlla li mu wax mooy dëgg pourtant ñoom am nañ ko lii dagan ne li araam na mais yenn saa yi seytaan moo lay jàpp ba yàlla ne la bàyyi lii nga dem def ko pourtant ni nga gëmee ne sa doom araam na ci yow noo mën a mel boo dee chrétien boo dee juif bo sa doom araam na ci yow kan moo la ko tere yàlla mais yàlla moom bu la nee sàngara baaxul nga bàyyi ko yàlla moom bu la nee sàcc baaxul nga bàyyi yàlla moom bu la nee fen baaxul nga bàyyi lan moo tax nga bëgg a gëm bee bay bi boo nekkoon jigéen sa doom bu góor araam na ci yow wala mun na laa takk ah sa doom bu góor mën na laa takk doom bu góor mën na takk yaayam dafa araam mais beneen jigéen dagan na ko kan moo ko daganal ki araamal ko kee kan la yàlla ba pare beneen mooy xool leen lislaam islaam lépp lu mu ne araam na xool ko ci sa xel nga natt ko di nga gis ne baaxul yéen ñëpp xool leen laa wax te lislaam ne ba ko fi bul ko laal kan moo gis islam tere dara ba pare mu ne li islam waru ko woon tere waay non li moom vraiment dafa normal wax leen ma benn benn rek laa ngeen wax wax leen bu lislaam ne bàyyi ko fi nga ni bii baax na wax dëgg yàlla warul woon wax nañ ko nañ ban waa ji ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk yonent bi toog mu ne yéen damaa bëgg nga jox ma ndigal ma njaaloo rek gars yi ni waay mais yéen est-ce que jóg ak seen i yàq saxaaba yi noonu lañ meloon ku wax ci watu yonent bi loo war ta wax ñu jóg ak seeni jaasi su yonent bi waxul rek ñu dagg sa baat allahu akbar yoon dina bàyyi leen jàmbur eh eh eh eh ay yéen yéen lañ laaj wala man yonent bi gaa yi ne yonent bi yow lañ laaj mais déggoo lim laaj kii dafa yabaate ñëw ba ci sa wet di wax lii yonent bi ne waaye yar dal leen rek man la laaj ma bàyyi leen ma tontu ko gaa yi daal di teg lem jaasi yi ne nga ni loo wax yow dama bëgg rek nga bàyyi mu day gel loolu leen di ah amay bànneexu ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay ah yow tamit yow tamit nag lox loolu mu ne ko ah yaayu jàmbur yi nga ko bëgg a def di ndax bëgg nga ko def sa doom mu ne bëgguma ko de ndax bëgg nga ko def sa tànta ndax bëgg nga ko def sa bàjjan ndax bëgg nga ah kan ci ñun fii toog ci biir jaaga ji moo bëgg ñu njaal ak doomam sa jabar sa yaay kenn bëggu ko parce que lu bon la waaw da bu ko defee yegg doomu yaa yaayi jàmbur yi gis nga yonent bi noonu la fajee waajooju mu normal allahu akbar yonent bi waxee waajooju dëgg waa ji dafa siggi xool yonent bi ne ko ñaanal ma yàlla njaaloo dañ ci sama xel ak sama awra yonent bi jël loxoom fëgg dënn bi ne yàlla yàlla nga laabal xolam dënnam bi ak awraam bi yàlla na nga ci laabal njaaloo waa jooju borom xam-xam yi nee nañ ba ba muy faatu siggeetul xool jigéen loolu yonent bi faj na ko ba mu ne këŋ yóbbu ko benn hôpital naanul benn garab la mais daf ko branché digganteem ak boromam daf ko wax dëgg te dëgg mooy defar nit inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq li tahkuma bayna annas bima araka allah man yàlla subhanahu wa taala maa wàcce ci yow dëgg dëgg googu pour lan la pour nga àtte ci nit ñi waaw bi ma araaka allah bi ma allamaka allah ci li la yàlla xamal wa arafaka bihi yàlla jàngal la ko xamal la ko laa bi mujarradi ra'yi ra ra'yin ra'aahu xayrak déedéet bul jël vision bul jël gis-gisu keneen mukk bul jël xelu keneen bul jël xam-xamu keneen li la yàlla indil jalla jalaaluhu subhanahu wa taala lim la indil jëlal loolu ndax loolooy lu baax bul jël mukk lu la keneen indil bi ma araka allah ci li la yàlla xamal yàlla jàngal la ko yàlla won la ko jëlal loolu bul jël leneen luñ la nax luñ la capp-cappal ay ay xalaat luñ la ko rafetalal lii mooy lii ay démocratie ay liberté ay nangam nangam yëpp ay fen la caaxaan kese la maa fi démocratie fi laalami amul démocratie amul dañuy fen démocratie amul ci àdduna bi amul fen dañuy nax saa yoo buggee def loo xamante ne lii loolu ñuy wax ñoom démocratie moom moo ko nangu soo ko buggee def léegi su leen arrangé wul ñu dóor la bal ci bopp wala ñu boole la ak peuple wala ñu boole la ak nit ñi complot la diaboliser la wax leneen ak leneen ak leneen ba nit ñi bañ la dara amu ci dañuy fen bu yeboo ñu xam loolu yàlla subhanahu wa taala daa di yedd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wala takun lil xaayinina xasima maa ngi lay yëgal ni traître yi warkat yi bul taxawati seen wet waaw waaw bul taxawati seen wet di discuter ak ñoom muxaasiman baaligan fi lxusuma bul taxawati ci képp koo xamante ne leer na ne la traître la ngay wax ak moom di xulóog moom di ko jéem a wan dëgg abadan ku war yàlla war yonent ñépp la war a ba kenn waratul taxaw sawet loola tax am na nguur yu ñuy am ñuy wotelu ay loi ñépp a war a ànd bañ leen bu ñu yem ci sax ànd bañ ko waaye dañu war di ñaan guddeeg bëccëg nguur googu yàlla na ko fi yàlla jële waa jooju def loolu yàlla na ko fi yàlla jële sama soxna daf may nettali démb benn xissa bu mu liir benn buur bu daan julli ci benn jàkk jàkk bu mu tabax ba pare def fa imaam imaam bi di ko jiite di julli ay ràkk yu gudd gudd gudd gudd gudd mu daal di koy woo ba mu ñëw waaye nga lu ma lay yëgal bis boo fi jiitee te jàng fi saar yi gudd di nga am problème ah imaam bi daal na ko waa dégg naa julli jot ñu li noot du li xaam imam bi daal di jàng faatiha ba pare daal di jàng inna ataana saadatana wa kubraana fa adalluna sabil daal di rukkoo sujjóot jógaat deuxième rakk daal di jàng li ca tegu ca aaya ba daal ne rabbana lu ci tegu aatihim di afayni min al azab walanhum laanan kabi dégg nga aaya bi li li waa ji def maanaam aaya bu njëkk bi dana yàlla yàlla aaya bi mu wax ne topp nañ sunuy kilifa ak sunuy njiit ba ñu sànkuñu loolu la wax deuxième raaka bi mu ne yàlla yàlla nga leen a mbugal nga dubleel leen mbugal mi nga ñamal dañ ne asalaamaaleykum buur bi ne ko eh eh eh jàngal lu la neex ci alxuraan guddalal mais ñaari aaya yi bul ko jàngal voilà gis nga gis nga parce que imam bi moom lay wax ci xutba bi comme moom moo tere ne bu fi kenn defati nangam loolu laa leen doon wax sànq ma ne ku jàng diine nga xam diine loo wuyu wuyu wuyu wuyu di nga am loo dese ndax di nga ragal yàlla am côté boo dese waaye boo xamul diine moo mun la yóbboon ba maa ko ubbi kaaba ga it ñeme nga faa dem àll ba parce que xamoo diine yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bul taxawati mukk ci traître yi di wax ak ñoom wala ngay discuter ak ñoom mu ne ko wastaxfirillah jéggalul sax nag yàlla ca la nga waxoon la nga yéene woon sa xol ne bëgg a dagg loxo yahud bi wastaxfirillah jéggalul yàlla waaw waaw na nga jéggulu de min ajli ma xamamta bihi min uqubatil yahud la nga yéene woon sa xol sax ne man danaa mbugal yahud bi dagg loxo bi fekk dañ laa nax ci ay wax yu neex jéggalul yàlla astaghfirillah jéggalul yàlla yow julit bi saa yoo wàccatee yoon wi inna allaha na nga yëg na yàlla kaana mustadañ gafuran di jéggale rahiman di yërëme allahu akbar al imam sayid hawa rahimahullah nee na su ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee mbokk yi aaya bi fan la jeexee inna allaha kaana gafuran yàlla mustadañ di jéggale di yërëme loo ci dégg kon loo mën a def gaawal nga jégglu yàlla jéggal la ndax am nga borom boo xam ne day jéggale di yërëme yàlla ne yonent bi walaatu jaadil bul discuter bul di dàgg sante anil lezina ci gaa yi nga xam ne yaxtaanuuna anfusahum dañoo war seen bopp waaw déedéet am na ñoo xam ne mbokk yi kenn du discuter ak ñoom ku nax boppam ba pare war boppam def li ko neex ah comme waa ji nga xam ne dafa dem sàcc dem tuumaal keneen ah léeg-léeg nga gis ci biir dëkk bi ku def tuuxi doona ba pare taxaw di ko laayil fekk leer na ne dafa war boppam wala tujaadil bul di discuter ani lazina ci gaa ñi nga xam ne yaxtaanu na dañoo war an fu sam seen bopp ki war bañ ko ne weer wi feeñ na mu dégg fi daal ah c'est que weer wi ñun fii xam nga rek nangam nangam wala joxaguñ ñu lii wala waxaguñ ñu lee nga taxaw di wax ak moom te xam nga ne kii dafa nax boppam dafa war boppam mooy aaya bi wala tujaadil an allazina yaxtaanuuna anfusahum bul discuter ak ñi nga xam ne dañoo war seen bopp waaw def tooxi doona ba pare nag bu ko laayil nag ba mu nekk dëgg mun ta ne parce que yàlla xam na ne yow lii ngay wax da nga même ci sa bopp gëmoo ko da ngaa war sa bopp mooy moo am Sénégal ngay ku nekk ci caaxaan ba pare naan non c'est que lii boo gisee ñu organiser ko dañuy bañ xale yi ah dem ci nangam ak nangam def fekk yéen lii ngeen organisé moo gën a bon li ngeen bëgg a tere xale yi gis naa benn waay boo xam dafa ñëw ci benn koñ waa ji da doon julli de xëy dem ziyaare ji sëriñam rek sëriñ bi ne ko ah yow dégg naa da ngay julli mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko ñun fii ku fii ñëw doo julli waa ji daal di bàyyi julli ñëw koñ ba organisé fa ay daayira yi ndaw xale yi ndaw di muur fii indi biscuit gerte bu ngoonee ñi naan nangam nangam mu naan ñi naan eh gis nga kii dafa bëgg xale yi baax allahu akbar billahi xale yooyu buñ màggee nekk ay yéeféer ah ñooñu xamuñu fi waa ji nar a jëmee xale yi fi mu nekk mu ngi cere mbooloo bu ndaw bis bu ñooñu màggee moom mu nekk seen sëriñ ñooñu bàyyi julli nag bàyyi woor waaw ñetti ñàkk sax ñu ëmbal leen bañ nekkee xale yi ndaw loolu la yàlla naan nu bu leen di discuter ak ñi nga xam ne di werante ak ñi nga xam ne danoo war seen bopp inna allaha yàlla laa yuhibbu bëggul man képp koo xam ne kaana nekk na xawaanan warkat asi man ko bëri bàkkaar warkat yàlla bëggu ko ñu yàlla bañ warkat ci la bokk yàlla bëggul kuy ngand ngandulu laa yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura yàlla bëggul kuy ngand ngandulu bëggul kuy tiitaru yàlla bëggul traite inna allaha la yuhibbu man kaana xawaanan athima gis ngeen waxoon naa sànq boroom xam-xam bi nee na aaya yi fu ñuy jeexee na ngeen ci bàyyi xel aaya bi fan la jeexee yàlla bëggul workat kon kuy wor yéba nga xam ne yàlla bëggulal ku yàlla bëggul nag luy sa àtte ëllëg mais safara la la jëme yàlla yamul ci loolu mu ne yastaxfuuna min annaas dañuy nëbbatu nit ñi wala yastaxfuuna min allah te dañuy nëbbatu yàlla te huwa maahum te yàllaa ngi ànd ak ñoom allahu akbar yastaxfuuna min annaas dañuy nëbbatu nit ñi wala yastaxfuuna min allah te duñu làqu yàlla lu tax duñu yàqu yàlla wa huwa maahum yàllaa ngi ànd ak ñoom ñu ëpp ci ñun su nit ñi toogee ñu normal soo nekkee ci biir nit ñi jub ah soo nekkee ci biir nit ñi jub sooy wax sooy def nangam ak nangam contrôlé wu waaye mbokk yi allahu akbar soo noppee gis nit ñi yaag yàlla luy xew kon neex nga def nga fàtte ne yaa ngi ànd ak yàlla yastaxfuna min annas dañuy nëbbutu nit ñi wala yastaxfuna min allah du nu nëbbutu yàlla huwa maahum te yàlla ngi ànd ak ñoom is kañ jamono ji nga xam ne yu bayitu na ña nga fanaanoo maa laa yarda lu mu gërëmul moom yàlla minal qawli ci wax gaa ñaa nga fanaanoo ay wax yoo xam ne dañ koo denc ci seeni xel ak seeni xol seeni dënn programme ko suba dañ koy defi ñu bëri ci ñun fii toog ñoo ngi tafsir tey la samedi mais am na luñ programme de bu tafsir bi jeexee ñu rajaxe ji ah yàlla wax de damay nettali rek mu ngi nii is yu bayituuna gaa yaa nga programme ña nga denc nëbb waaye soirée bi kañ la tey la lan ah nee noonu damay xaar leen ma ba ma dem tafsir ba pare quoi bu ma pare nag insha allah ma sang quoi benn mbokk nee na ma 31 décembre vendredi la woon ndeysaan ñu ñëw ci benn juma ñu julli juma ba pare rek ñu def bayaan def bayaan nit ñi taxaw déglu déglu déglu déglu déglu déglu ba bayaan bi di waaj a jeex rek ma ne leen mbokk yi yéen ñi nekk ci bayaan bi tey tey nekk 31 décembre yëkkati leen seen loxo ngeen seedeel yàlla ne yéen du ngeen baali tey rek gaa yi yëkkati yëkkati ñëpp yëkkati mbokk moom ma ko doon nettale mu ne ñu dem ba ngoon nag mu ne ma sangu ba pare solu defaru xeeñu parfoo rek di sama fit bi ne rës man tey juma dama ne mu ne bii xel ne ma dama waay xel ne ma yow yaa ko yëkkati woon tey la aljuma te ci juma la woon mu ne ma am problème ñu ne ma kaay reer ma ni suur na munu maa tëdd munu maa toog mu ne may baagante diggante budd kër gi ak saal bi su ma demee ba ci budd kër gi rek su ma fit bi ne rës mu ne ma dellu siwaat mu ne oustaz noonu laa def rek après ma tëdd mu ne gis nga wallahi loolu moo ma indi ci sunna loolu moo ma jubloo ba fii ma toog tey keroog laa bàyyi dem baal 31 décembre gis nga ndeke nit dana dem ndey programme yàlla moo tax yàlla moo wax dëgg mu ne dañuy nëbbatu nit ñi duñ ko nëbbatu te moom mu ngi ànd ak nit ñi lu tax nit ñaa nga programme maa laa yarda min al qawl loo xam ne baaxul programme boo xam ne ci wax ak jëf la ñu ngi ko programme te xamuñu ne wallahu bima yaamaluuna muhiit lépp lu ngeen def yàlla peeg na ko wallahu yàlla loolu la de wa kaana allahu yàlla mosta deñ muhiitan mu ngi peeg bima yaamaluuna li ngeen di def gis ngeen yàlla yaa ngi programme ay programme yu garaaw waaw yaa ngi toog ci nit ñi nag jub xooj waaw ndeysaan ñu gaa yi naan est-ce que est-ce que waay saawaay bu génnee rek dëbbi ndox danañ yàlla xiir ci dëgg yàlla yàlla saxal ci njub yàlla rek mooy jubalaate yàlla na yàlla jubal allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik rabbana la tuzig qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab yàlla mu ne wa kaana allahu yàlla masta dañ da ngeen yëg loolu te du musa dañ mu xiitan muy peeg lan mooy peeg mooy muy wër ndomba di xam bi ma yaamaluna lépp lu ngeen def waaw léegi aaya bi bu ñu fi yemoon tey tafsir bi rek doy na yàlla nee na lépp lu ngeen def xam naa ko kon ci ñun war na noppul wala waru na noppul ah wa kaana allahu bima yaamaluuna muxiita yàlla nee na lépp lu ngeen mën a def man yàlla xam naa ko kon kay doy na soo gëmee loolu rek sa conscience day tranquille kon lépp looy defati da ngay def lu jaadu parce que yàlla xam na jarul ngay wan nit ñi jarul nga naan man nii laa mel jarul ngay kii fii di wanewu di déedéet yàlla xam na la su la yàlla xamee nag ak nit ñi xam la du benn yàlla xam la moo gën mu ne ha antum yéen ñii ha ulaa yi ñii may waxal yéen ñi ma jàkkaar lool tey ci jàkka ji jaadaltum yéen a ngi dàggasante anhum ci ñoom fil hayaati dunya ci dund àdduna yéen a ngi ni taxaw tey yéen waa famille bee di setal waa ji nga xam ne ab sàcc la woon ngeen naan sàccul di ko défendre ci kanamu yonent ah di dàggasante ha antum yéen ñii ha ulaa'i ñii jaadaltun anhum yéen a ngi dàggasante am ñoom fil hayaati dunya ci dund àdduna ah faman yujaadilu llahu anhum yawma alqiyama kan moo leen di nekkal avocat ëllëg solal leen robb yawmal qiyaam ci kanamu yàlla kan la avocat bi ngeen jël tey mu taxaw fii di dàggasante di wax di wax ba ñu jël dëgg gi wëlbati ko ah ndax ëllëg yawmal qiyaam fa man yujaadilu llah kan mooy dàggasante ci kanamu yàlla solal nit ñi robb anhum yawmal qiyaama kan la ndax nit ñi am nañu ëllëg avocat buy taxaw ci kanamu yàlla léeg-léeg nga dégg Sénégal lu garaaw bu ndemee ba jaam ñi sonn diw mooy ñëw nga gis xulli bu nii takk rajo di yuuxu ci kaw di way ñëw waaw ana yàlla mu ne maa ngay leen mbokk nee na dañoo am néew ne bi ñu amee néew ñu suul néew bi benn waaye ne tëll ci biir ana ngeen ñu ne ñoo ngi mën a taxaw leen ñu taxaw mu ne na am ku toog ci bopp bi am ku toog am ku toog ci tànk yi am am ku toog ndeyjoor am ku toog am ku toog càmmoñ am ku toog mu ne ki toog ci bopp bi jàngal Fatiha ki toog ci tànk yi jàngal benn saar ki toog ndeyjoor ki toog ndeyjoor mu ne ko taayal ki toog càmmoñ mu ne ko sëlmalal gaa yi pare mu ne jeex na jeex na kii ku mu neex ku mu naqari dem naa jëna saye kenn mënatu ci dara assurance gars yi yuuxu allahu akbar gars yi di yuuxu ci armée bi xoolal loolu nu mu grawee rek assurance la ilaha illallah ay Sénégal oh Sénégal oh booy ut dëkk bu réer ay jullit yu réer yu sori seen boroom yu xamul dara seen diine yoo xam ne dañ leen a nax réeral leen ñëwal Sénégal kon loolu nu mu yombee rek ana diw nu ne maa ngi nii toogal ci bopp bi ana diw maa ngi nii toogal ci tànki ana diw maa ngi nii toogal ci ndeyjoor ana diw maa ngi toog jàngal Fatiha yow yow jàngal saar yow saayaal yow après nga sëlmal loolu est-ce que yonent bi xamul woon loolu yonent bi jàngul woon loolu xamul woon loolu est-ce que yonent bi mos na def loolu Aboubacar mos na ko def Omar ak Ousmane Ali allahu akbar wallahi imam Malik nee na lépp lu nekkul woon diine démb du nekk diine tey lépp lu nekkul woon diine démb bi yonent bi di dund ba yonent bi dem alquran jeex lépp lu nekkul woon diine mënul nekk diine tey abadan ñu noppal suñu bopp mbokk yi su fekkee am nañ ñuy discuter ci kanamu yàlla ëllëg yowmal xiyaama ñan la nañ leen indi ndeysaan yàlla subhanahu wa taala nee na am man yakunu alayhim wakila am man ana kan yakunu kuy nekk alayhim ci ñoom wakil man yanubu axarin ku ku leen di représenté ëllëg nekk seen wakil fi tahqiq garadin min al gaarad wuutu leen ci kanamu yàlla pour indi leen seen benn bëgg-bëgg bu nu bëgg mu discuter kook yàlla ba loolu nekk ndax dañ ko am ana kan mooy sunu délégué bu nu délégué ci kanamu yàlla ëllëg kuy ñëw taxaw ci kanamu yàlla sol robb di wax di wax di wax di wax ba yàlla ne waaw kay dëgg la ñu ne ana waa Sénégal ñu ne ñu ngi nii ñu ne léegi nag mën ngeen a rendu gaa ñu ne saye saye saye saye quoi saye kër bi jeex na quoi am ngeen ko mën nañ leen ragal yàlla dellu ci sunu diini jàpp ci alquran jàpp ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu yàlla ku ñu bañ a nax daal nañu wax ne jaamu leen yàlla ku ñu bañ a nax nanu wax ne jaamu leen yàlla topp leen yàlla topp yonent loolu doog mooy dëgg waaye bu nu bëggee nekk ci ay naxaate ay caaxaan ëllëg yowmal qiyaam alquran baa ngi dafa leer nañ inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq li tahkuma bayna annas bima araka allah loolu leen yàlla wax mu leer nañ nañ nañ nañ nañ mu nekk dëgg moo ngi nii kon loolu moo doon darsu tey ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu